que lu ko may fi ñu jëm du baax parce que ñoom alkaati ci ci dëkk bi lañ dëkk seeni njaboot ñu ngi dëkk ak ñun fii dina di nga toll forte xam ne di ngeen def xale yi loo xam ne peut-être suñuy exercer seen yi mun na jur loo xam ne baaxul ci réew mi bu ñu jàppee xale daal nañ ko traité correctement dossier yu bëri tey euh, boo ñëwoon au pouvoir peut-être dina dem ba CPI ñu yàgg la dégg également euh, ngay wax ni rendre compte président Macky Sall dina rendre compte entourage am dina rendre compte fan yi ñu dégg benn leader politique aussi bu nekk ci opposition bi mu ni président Macky Sall bu ñu bëggee aussi mu dem il faut que ñu rassurer ko mais yow ñu ñu bëri jàpp ni aussi danga nga am un discours un peu radical euh, contre contre moom est-ce que yaakaaroon ni tey loolu bokk na si li tax mu bëgg accroché wu au pouvoir si tant am na volonté boobu waaw mais xam nga question bi suñ ko posé sax man damay xaw a jaaxle damay xaw a jaaxle parce que day wane ci suñu réew yi toll dafa am débat yoo xam ne suñu réew yi rek lay am est-ce que foog nga ni tey un président français wala allemand wala italien wala américain dañu toog ba mandaam jeex ñu naan way suñ ko rassuré wul du dem wala pourquoi ñuy rassuré nit lu mu def bañ koy rassuré foofu la question bi nekk man de nekk naa député ba jóge fa soxla ma ku ma rassuré tey maire la bu soobee yàlla su ma fi jógee soxla ma ku ma rassuré ëllëg su ma nekkee président soxla ma ku ma rassuré parce que dama dul def lu war a tax may am njàqare ci dem gi ma war a dem euh, nekk naa impôt domaine ba jóge fa soxla ma ku ma rassuré parce que defuma fa lu war a tax ma am njàqare jëluma fa lu ma moomut jënduñu ma fa geruñu ma fa laajuma kenn lu dul li nga xam ne moom laa yelloo kon débat bi ñu njëkk war a poser à la base mooy pourquoi ñu war a rassurer nit lan la def ba ñu war ko rassurer ki naan nañ ko rassurer moom moo waroon njëkk a xel bu xoolaat boppam parce que aveu la mooy def naa naka sudul noonu muy benn ñaareel bi mooy euh, damay wax toujours ni ñun amuñu benn problème personnel avec quelqu'un président Macky Sall yàlla mi ma tiim moo xam gëm na ko wala gëmu ko aw ma benn problème personnel ak moom yéenewu ko dara lu bon parce que nit ku ma gis damay jàpp ni moom a gën d'accord ma nag ci ni mu yore réew mi loolu beneen débat la mais loo xam ne lu personnel la malgré nag lim ma teg yëpp de waaye amul loo xam ne sama xol bi jàpp naa ko naan dama koy foyanteeg moom rawatina nag un président la république dafa am immunité quand boo xam ne immunité bu dëgër la donc li ko mën a li mën a tax ñu topp ko mooy li ñuy wax haute trahison muy lu jafe loo xam ne constitution sax daf ko dafa daf ko daf ko énoncé rek waaye waxul lan mooy haute trahison voilà ba tax man dama bëgg ñun ñu avancé gis nga man su ma doon président la république su ma doon président la république sama adversaire bi ñëw naan maa ngi dalal sa xel waaw demal rek du ma la topp du ma lii kooku lay gën a moytu ndax ñooñu moy naa yoot ba jekku kooku laay gën a moytu est-ce que moom président Macky Sall dafa dalaloon xelu président Abdou ab lay Wade est-ce que Ablaye dafa daloon xel xelu euh, président Abdou Diouf déedéet compétition électorale la réew mi tànn la ki ñu tànn nag gis nga réew suñ la ko dénkee dafa am benn erreur bu réy boo xam ne président Macky Sall def na ko biñ ko falee 2012 li Sénégalais doon xaar ci moom mooy mu jublu ci liggéey bi nit ñi am liggéey ndool mi wàññeeku nit ñi faju njàng bi baax tali yi baax éclairage ndox am loolu mooy li ñu gën a xaar ci ku ñu fal président de la république waaye du lu ñaata nit nga tëj kaso du loolu la ñuy du lool mooy bilan nit justice nag dina def liggéeyam maa njëkkoon ne dama contre yi te tey laa ko gën a contre mooy dinaa la jàpp parce que am nga kër gu rafet ma dem tëj la kaso ba pare doog a seet nag ndax def nga wala defuloo loolu du àtte diine du àttee noonu jamono du àttee noonu koo xam ne nag corps de contrôle moo xam IGE la wala cour des comptes wala keneen dem na càmbar ni nga yore gis ni def nga ci nasa naka sudul noonu ñu def rapport teg ko ci justice mais nañu bàyyi justice def liggéeyam du man may jóg président la république ne justice toppal wala bul topp te réew noonu la war a doxe kon débat boobu dama xamul lu ko fi andi mu am ñoo xam ne nag defe naa dañuy dañu bëgg a féewale ak jaxase waaw nañ ko nañu dalal xelam nañu lii man de su ma doon président de la république ñu naan tey dañuy dalal sama xel boobu laay gën a am ji yéexi jaaxa su dee dara amul loo xam ne war naa justifier lii je ne vois pas pourquoi ñu naan dañuy créer ay dossier pour jàpp ma Samba wala ma Demba gis nga fayu fayu foo gis ku koy def day dellu gannaaw ku dëkk ci fayu ñaar ñaar yi bokkul nag nga nekk ci position doo xam ne dañ laa teg injustice ngay xeex injustice boobu kooku bokkul ak ku dem ba jekku yor doole ne maa ngi fayu moo tax nit ñu baax ñëpp yonent yëpp bu ñu demee ba yàlla jox leen victoire ba ci nit ñu baax ci politique ma Nelson Mandela faywul même Ablaye faywul ça veut pas dire que nag da ngay garantir impunité déedéet mais chasse aux sorcières doo ko def. non mais pourquoi ngay chasser les sorcières parce que suñ ne woon chasse aux sorcières sax ba léegi waaye créer des sorcières pour les chasser après loolu réew mu tardé loolu ko tardé dafa am le juste milieu mooy li nga xam ne lu ñu càmbar la ba gis ni lii du yoon ñu yët ko justice te du yow président yaayoo justice ne ko defal li wala defal lële nga bàyyi magistrat ñu def seen liggéey ak li nga xam ne par exemple luñ la teg la yow ci sa bopp nga ne baale naa ko ngir yàlla parce que bis bu bis bu ne ma ma def yàlla lu ma mënoon a lu ma mënoon a mënoon a fay ci nii wala ci ne te maa ngi talal sama loxo ne ko baal ma moo tax yonent yi noonu la ñu def homme politique yu mag yëpp noonu la ñu def mais ku toog ne tey ma régler samay compte wala ragal naa tel adversaire politique il faut que tey ma bloqué ko ba naa ko créer dossier politique doo am bilan ci réew mi moo tax le débat est mal posé man li ma wax mooy li nga xam lu ñëpp bokk la ku toog ba mu neex ko ñu ne suuf si ñun ñëpp ñoo ko bokk nga ak yi moo ko yow kese dem jël si ay milliards toog jaadu na ñu xool loolu te bu dee def nga boo mënee fay fayal boo mënul fay ñu xool nen nu ñuy def loolu dafa war a am ci réew mi ba kenn ku ne bis bu ñu dénkatee nga ne fii la sama sama sama sama limite lii laa moom lii moom ma ko naa ko fi ba loolu moom ku ku ko bëgg teg fële rek bëggoon